ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi caatu ngéwél booy Dakar caatu ngéwél moo ñu woon ginnaaw booy Dakar nu jàkkaar lool abi baa ngi laaj ay jugeem booy Dakar kaabar na ko booy Dakar arbitre bi sifflé na booy teg na pied droite caatu ngéwél teg pied gauche booy am na lu mu moo ngay leem pareegul doon na ca loxo ba ñoo ngay lewaatoo mbokk yi ñaa xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Boy Dakar tibb na ci suuf sa. daa bëgg a gaawal combat bi Ousseyn. fausse garde la ak garde normal Caatu Ngéwél na sóoraale bu baax tànkam yi. booy Dakar ci tànk la jam te booy xeex te xeex bi baaxul mun naa jiwaloo ak yow. Boy Dakar nag na ne garde bi wàcc ci suuf. xaw ma lan lay togg waaye ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xiifoon na sa morom. signature contrat ku ci nekk. xas-xas loo na moromam na ngay xeex waaye door mu daanu moom ragal naa ne mënul am. tànk ba jël na ko da koy daan daan na ko. jël na tànk ba am na ko Ousseyn. vite fait bien fait daan na ko lu ma waxoon wàcc bi moo ma jaaxal wàcc caatu euh, booy Dakar bi daf maa yéem ci caatu ngéwél parce que ni mu wàccee boo suufee ba wàcc mais mais caatu ngéwél mi sportif la caatu ngéwél la man lii bëgg naa ko ci mbër de defen nii loolu def. da ngay xoolal da ngay féliciter sa adversaire ndaysaan ñi nga àndal nga jaajëfal leen xam ne daan neex ngay daan doomu jàmbur tey daan nañ la kilo daan mun na laa daan ci làmb bu ëllëgee nga waat ñëw. mais man li ma ci jaaxal mënoo sut Boy Dakar sigi taxaw ne jom Boy Dakar wàcc bu gën laa suufee nga sigi moo tax bi Boy Dakar wàccee sa suufu tànk ma sa conc ba la jàpp. image bi rafet a ngi nii Ousseyn ci tànk ba la jàpp parce que Boy Dakar ni mu wàccee ci suuf tibb suuf mooy wane ne benn attaque la am ci combat bi. boo attaqué daa war a jàpp moo tax bi mu attaqué xeelu ngeen euh, caatu ngeen di dóor gisul coup boo Dakar daa jiwala coup bi ci suuf bi mu amee tànk bi rek da koo dëj mu toog mbër mu mën a bëre fu mu jàppee sa tànk Ousseyn làmb ja jeex na. waaw boo Dakar ay noonu di ñëw. xoolal la muy def xoolal la muy def maa jéeri yoo yoo. asam xam nga soo yoree ay njaboot. soo yore ay njaboot soo leen di ku nekk da nga koy teg sa place affaire bi noonu la demee. nga wàcc ba gën a gàtt musu gi taxaw ne jon nga wàcc. xam naa ne day ñëw xeex xam naa ne day ñëw xeex parce que cokkaas na ma xam ma daw dóor ko góos muy daw di ñëwaat mu yaakaar ne ma dama indi xeex ma wàcc jël ko suuf mu jeex. mu nekk benn cong ak combat bi ni mu bëree coow yëpp. waaw ngir billaahi combat yi wax rek la si amoon mais sant yàlla daal sant yàlla. parce que mobilisation bi tey. mobilisation bi waa ñaari tali ku si mel ni sama yaay Ndeye Sala Diop Dieng Ndiogo ambassade France jàpp na si bu baax a baax a baax ñoom docteur Sène ñoom euh, Jean Baptiste Diouf ah ñoom jàpp nañ si bu baax a baax ak euh, Djibril Wade Djibi Wade jàpp na si bu baax a baax ñaar tali kenn ñëpp jàpp nañ ci. léegi lu ci des. barke alxuraan ah. lu ci des après ñëw leen koñ ba. ñaata